bi 10 heures tegee simili alerté sur benn accident de circulation pour génnee kawoon di jëm côté café. effectivement ñaari minutes lañ ci minutes, pratiquement moins yëpp yi nga on nous a parlé de bus, donc tout de suite nous ñun xam nañ en général day bëri victime donc tout de suite moyens yu bëri dañ leen engagé donc en même temps ñu alerté aussi la région médicale bi nga xamante ne suñu partenaire bu ci situation yu mel donc bi arrivé sur place effectivement dafa nekk un bus

ñom ñoon nak bien sûr les moyens yi ñu mobiliser ñun ak wa région médicale ñi nga xam ñoy jappalé ci liguey bi permettre nañu rapidement ñu jël leen en charge évacuer leen ci hôpital régional euh, bu Kaolack donc heure bu may wax ak yow nii amul benn blessé wala benn victime bo xamanteni tay nek na sur les places te jël ñuko en charge au niveau des des hôpitaux donc euh, donc comme je disais ñu leen yóbbu ñom ñëpp au niveau de l'hôpital euh, régional de Kaolack voilà légui xana profité ci ci situation bi rek pour jébbal encore ñu ndial ci ñinga xamanteni ñak nañ ci seen bakkan ci ci ci ci ci accident bi ak gën di ñaanal aussi ñinga xamanteni am nañ ay blessé yalla may leen ñu teel a retrouver retrouver seen santé ba mëna ñibi seen njaboot ñibi seen liggéey mais di profiter walu également ci occasion pour gëna a ñaaxaat nit ñi ci ci ci prudence bi nga xamanteni mo wara mëna a mën a nekk loo xamante ne ñëpp ci lañu wara mëna a mën a euh, teg nekk en tout cas euh lo xamanteni ci la ñëpp lañu wara mëna sukkandiko pour mëna dawal mëna évoluer ci tali bi parce que tali mom ñëpp xamnañ ne euh ñëpp dañu bëgg gaaw yegg

di wax accident bi comme ni ma ko waxee léegi rek mi ngi amee euh, kawoon boo rombee daral bi te accident bi euh, ci virage bi boko ko la mais ben dodan, mi ngi won ci kanam te yegagul won ci doodaan bi ñun nag bi ma li ñu constaté ak ñi fi né yépp moy apparence métallique pneu yi donc pneu yi usé parce que mënoo ko wax parce que nit ñi mënuñ ko wax nga ñëw wër ko parce que ñëpp gisandoo nañ ko. autorité yëpp nag ñu ngi fii gendarmerie euh, sapeur yi ak képp koo xam ne kilifa nga yaa ngi fii ci euh, accident bi ah bu fekkee ne oto bi doon na dawit oto bi waru fee rouler lu bari parce que su fekkee ne da ngaa romb virage nekk ci biir dëkk doo daan nekk sa kanam normalement oto bi waru daw li mu doon exactement nag xaw ma ko mais li leer daal mooy tojum pëna mooy origine accident bi. waaw borom oto yi mooy ñuy vérifier seen oto parce que. chauffeur bi su fekkee ne pneu usé na mu monté ko te chauffeur bi borom oto bi yéegu ko borom oto bi war na toujours s'enquérir de la situation pour mu xam ndax pneu yi usé am déet parce que chauffeur bi mën na am pneu bi use mbaa nga jox ko sir sirumaan mu toj pneu monté pneu ba usé fekk bëriwul xaalis rus naa dem ci borom oto bi wala ñemewu ko yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ne dafay am borom oto bi toujours war nay fexe di xool oto bi état bi surtout pneu yi parce que pneu du lu ñuy baale parce que bi ñu ñëwee rek ku ñëw xool rek ñu ne pneu yi baaxul apparence métallique weñ yaa ngi ni génn te loolu mënuñ ko gis nit ñi wax ko yow nga ñëw di ko wër